auzubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim xanaa di tàmbali si suñu kàddu rekk di ñaanal sëñ Mouhamed Bachir mu yàgg fi lool te gën a wér te naal yi mu naal liggéeyal Serigne Touba euh, mu mottali ko def ci lu kawe njoxtam te ñu nit ñu am tawfeexu ànd ak moom euh, di wax ne euh, mbég mbégte Euh, ak ak kéemaan xaw ma yéemu lañu lañu la ñu yëg wax fa dëgg yàlla di di santaat Serigne Touba bu baax ba ñu amee taw feexu fekkee ko ndax lii de te wuute woon ko wóorul ñuy ñuy sant euh, ni ngeen wax rek xam-xam biñ fi jot a dégg ci diir bu gàtt ñu fi toog yokkoo nañ fi te te murit moom danga war saa su nekk di di di yokku ñuy ñuy santaat di rafetlu xam-xam bi ak euh, ni mu neex a ndax yombul ki di wax ak ay nit yoo xam ne peut-être seen xam-xam màccul ci wàll boobu waaye nga faramfàccee ko noo xam ne dana leen jëriñ euh, loolu yombul euh, waaye ba ñu toogee ni ñu gisee jataay yi ni mu rafetee ak ni mu maasewee muy muy muy jataayu murit dëgg te te ñu yëg ci it ak cant mooy amul xàjj ak seen loolu moo ñu gën a marqué euh, vraiment euh, loolu daal laay mën a wax dañuy dañoo bëgg ndax ndax jafin gi dafa dafa rafet waaye dañoo yegg sax ci yéemu ci ndax ñu ngi naan euh, bu dee nii lay demee weer bi yëpp <laughs> war na war naa metti waaye di xam ne rek sëriñ Touba kenn dadul moom. moo tax dinga yéemu waaye boo xoolaatee ki waral jëf ji borom barab bi dara du ci dara du ci bet te ñu ngi ñaan yàlla na leen fayal boppam te te saa su nekk tànku kanamam yii Euh, yàlla nay gën a fireeku ci ci ci daayira bi ñun daal santaat nañ bu baax loolu rek lañu la ñu mën a wax santaat nañ bu baax maa ngi ànd ak équipe cadre bi comme ni nga waxee am na euh, njaaye ni ñu ngi ci biir pare ñu ak ñeneen ñi ñun dañu jot a génn rek sëñ Abdoulaat ñu waaye wax fa dëgg yàlla équipe bi kenn desul ndax euh, ay partenaire ngeen ñoo bokk liggéey bi askanu Serigne tubaab bii nekk ci dëkkam bi rek ñu ñor ñu bokk euh, ku ci nekk am wenn wàllu woo féete yéen ngeen nekk ci jumaa ji ñun ñu nekk ci wàllu wér yaram bi ñaan nag yàlla na Serigne bi teel nu sunu taalibe yàlla na nu dimbali ba yombalal nu ndax jàmbar amul ku nu dimbali rek am yàlla na saxal ndimbalam ci ñun ba liim ñu koy liggéeyal mu teel nu ko gàttanu nu gungeenu te nangul nu ko te liñ si yéene daal ñu ñu gis si lu kaw njot waaye santaat nañ dañ ñu invité tey ñu ñëw mais suba dinañ ñëw te duñ ñu invité. <laughs>